waaw jërëjëf euh, maa ngi nii Mbour laa jóge léegi di ko jaale famille yëpp di ko jaale bombardier bi nga xam ne rakkama di ko jaale yaayam ak papaam ndax kere bi may indi bombardier ndakaaru booba Pape ja ñu ngi ko fekk ci kaw machine am muy ñaw ma jël bombardier indi ko fii jox ko Gaston Mbengue euh, Gaston jox ko Baye Yéri keroog lañ ko tuddee bombardier parce que amutoon écrit bu ñu ko mën a askanale ndax bokku fi woon te xamuñu ko woon bis bobu euh, Bombardier bëré na ak Manga 3 bëré ak aladji Nger ba daan alim sey ñu doora a xam Pape mu nekkan xalé bu yaru nekkan xalé bo xamni bi musul ya xalamb ci bes yi nga xamni ne rakam amna ko muy bes yu mak mak ci lamb daf koy rafetal bu daano day rafetal bu daane day fay rafetal yalla na yalla xare aljana di ko fami lamb làmb diko di aussi wa Mbour di ci jital mboolem sportif yi nga xam ne ñoo nekk ci Petite Côte rawatina nag ministre sport ak les membres du CNC yi. waaw euh, waaw euh, créé benn structure buy tëgg lamb bu ñuy wax Ndiar production. Ndiar production. ñu war a jëkk a tëgg le 9 février. arène muy feet bu mag boo xam ne bii dama ci bëgg a sant sama borom delloo ci njukkal yàlla ak famille lamb ndax ngi jël suma retraite le 1er avril bi ñu génn ci 2019 mom la bëgg a le 9 février 2019 muy bës bo xamni duma wax ni musuta am ci Sénégal ci lamb waaye dama ci bëgg woné ni promoteur yi ñu gëna rañé ràññee bi ñu ñëw fekk nañ ma ci lamb té ma and ak ñom bañu dégg daal té métier soko ko doon ci am facilité dama am facilité ci tëgg lamb am facilité ci am sponsor. mais tonton baa yaa ngi ciy woo ñëpp. waaw man nag euh, sama làmb amul kii day dugg amul kër di dugg képp koo xam ni kii ancien lutteur nga doo ñëw ci sama làmb di fay.